آه الحمد لله تلميذ بارك الله fiina wa fiikum mu mel ni xol yëpp sedd nañ ci muxaddima waxtaan bii nga xam ne niveau bi daf ñoo mujj dépassé sax nag macha allah ci maraaja yi nga xam ne yaa ngi ciy delloo nit ñi di ko junj itam ci biir waxtaan wi nga xam ne loolu dina jox ki nga xamante nii mooy ki bëgg xam-xam mu gën a def effort ngir dem gëstu gi téere yooyu comme ni nga ko waxee ay téere la yoo xamante ne ni yenn yi seeni noon binduñu ko ñoom ñoo ko bindal seen bopp demal ca duru saniya niki noonu ibnu Xannam moom mu nga tudd nga xam ne moom taarixu Muhammad ibn Abdul Wahab da ko bindal boppam moom daf ko bind ñi nga xam ne Muhammad ibn Abdul Wahab daf leen doon rey sax daf ko nettali dëkk jullit yi mu doon dugg naan dafay xeex ak ñoom loolu mu tudde ko ay fatxu yooyu yëpp ñoom ñoo ko bindal seen bopp mu nekk ay njaxum yoo xamante ne nii benn mag bu ko defoon ci réew mi bi si dootuñ ko may jaam mag ñi seet wicc lañ def seel lool te teewul ñoo ngi leen di tuumaan te ñoom seen téere yi deret la feese dell dell dell dell ak rey ay jullit ak ay caaxaan léegi nag ñu toog ba heure bi ñu yaakaar na nit ñi dañuy nelaw ñu saa dem bu ñoo naan ahlu sunna ahlu sunna kenn du leen bàyyee diina ji ñu yàq diina gi naan ahlu sunna loolu moom du jàll maa ngi am bu baax a baax a baax ci waxtaan bi di nuyu sama taalibe yi fi nekk yëpp Khadija bintu Xuwaylid gis naa ko démb xam barki démb ngi bind ñu ngi noonu Aysa Rasul Njaay ñu ngi koy ziyaar bu baax sama taalibe boobu ak sëñ baam Maraxib mi ci bunt bi xam naa ñoom Cheikh Mohammed ñoom Ala Chari ñoom sëñ Mamour Ñaay ñoom Oustaz Balla mbokk yi ñoom ñëpp dina ñëw mhm. ñu ngi ziyaar bu baax a baax a baax a baax a baax ñëpp mhm. sëñ Gànn Jóob ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax a baax Euh, Loum euh, bëgg bàmb ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla niveau bi kawe na torop torop torop torop torop torop xam nga boo delloo ci duuru san yi da ngay fekk wasaara baadu naas yasmau bina maasir al wahabiya tur wi man dañoo toog ba mu neex leen rek ñu bëgg koo changé waat alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamante ni ñoom yenn ci seen docteur yi sax bu ñuy bind téere dañuy am mbégte lool ci woote waay wahabiya xam naa dañ dem heure bii rek tur bi dérangé leen ñu bëgg koo waaye lu ne fàng dee su ko jeex muxaddima bi am na solo te silsila bi buy dox nit ñi danañ gën a xam ne ñi ay caaxaankat lañ yoo xamante ni yàq lislaam moom mooy seen objectif mais pas defar diine dañuy woote woo nag turu sel ahlu sunna wal jamaa lu nekk ahlu tawhid lu nekk lu nekk dañ koy woote woo waaye nag fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bi man ittaqa yal na yàlla fay yow sëñ tilmise ñu ngi ziar bu baax a baax a baax di ziare sëñ xaadim sëñ xaadim borom liggéey bu sell bi macha allah borom montage yi nekk ñëpp ñaanal borom youtube bi niveau bi kawe na torop torop torop torop torop barakallahu fiina wa fiikum ñoom sëñ moussa kalaamullah imam pape mohammed al alim al allaam abul xayri cheikh souleyman badiane ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di leen introsé bu baax ci commentaire ak teewlu waxtaan yi jërëjëf tilmise macha allah sama xol sedd na bu baax a baax أعوذ بالله سمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى القائل إن أمتي لا تجتمع على الضلال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكمل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبك جلتي نغلين دنيو دلين زيارة تبارك الله ما شاء الله كنا خمنا كم نيكو سي نور وخي نيو فاسييني تامبالي سلسلة إن شاء الله تعالى مانام ليرال تاريخ مبولو مي دي الوهابيه ñu jéem xam fan lañu ñu sosoo fan lañu ñu bàyyeekoo lan lañu ñu nekk di ko yëngal biir lislaam ak tamit seen liggéey yan jeexit la am ci lislaam ak ci jullit ñi tabarkalla tabarkalla kon bu ñuy naan alwahabiya nee nañu bi ñuy tàmbale alhamdulilah ñu ngi sant yàlla mi wax falyabudu rabba hadha albayt يلا وخنا تي سورة سار بي ني وخ ليل افي قريش يلا نانا فليعبدوا نيان انت بيوخ نيني فليعبدوا نانو جامو رب برم هذا البيت برم نيك بي كون فوفو ني غيسني يلا باتو رب ده موم لا وخ نانكو جامو وخول اله وخول الله وخول خالق رب لا وخ نعم كون ني ديغي سيني الرب yu'badu dañ koy jaamu rabb dañ koy jaamu dina am solo ñu comprendre loolu tegaat si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna ummati inna ca dëgg-dëgg ummati sama xeet laa tajtamiu du dajaloo mukk ala dalala ñoom ñëpp ñu réerandoo loolu mënta nekk te yenen tibi waxatal na bopam sallallahu alayhi wa sallam si xadis bu wér péng mune a wat na naa si yàlla lima ma leen ragalal du ngeen di bokkaale yàlla dedet mune lima li leen ragalal sama ginnaw mooy yàlla ubbil leen aduna ngeen xecio rayante ngir aduna waaye ragaluma ngeen di bokkaale yàlla sama ginnaw kon ñu deggi si ni yonent bi dak na bokkaale yàlla si xetam mën ta nek xetam bi mën ta dajalo di bokale yàlla ak leneen naam léegi alwahabiya moom moom mooy lan lu taxit ñuy ñuy woowee maanaam kuréel bi alwahabiya ndax tooñange la wala dafa am si lu wér péng fuñ ko teg ba mën a woowee kuréel bi alwahabiya aywa kon mbokk yi ni ngeen ko gisee maanaam image boobu ma dugal bi ma wàccee noonu pour tontu question bi ma poser ndax buñu ne wahabiya toñangé la wala dafa am fuñ ko tek fu wér péng xam nga li yàlla wax ci bir alquran ci suratu sayyidina yusuf wa shahida shahid min ahliha ku bok ci seen ñoñ moo seede booboo gën ci sédé yi boobu it moo gën a dal ci sédé yi téré bi mu ngi tuddu al alhadiyu saniyya wa tuxfatul wahabiya an najdiya maanaam ci gàttal téere bi mu ngi tudd cadeau boo xam ni cadeau wahabit la cadeau bi cadeau wahabiya la téere bi moom kan moo ko maanaam kan moo kan moo joxe ndigal pour ñu taalif téere bi kan moo joxe ndigal pour ñu tabu ko téere bi téere bi buuru arabi saoudite abdul aziz ibn abdurrahman ibn saoud ki njëkk nekk buuru Arabie Saoudite moom moo joxe ndigal nañu taalif téere bi te publier téere bi téere bi nee la mu ngi tudd al hadyu saniya wa tuhfatu al wahabiya cadeau wahabit la tudd cadeau bi kan moo ko moom nee nañu li jamii ixwanina al muwahidina min ahlil millati ñee nañu ñu ngi ko def cadeau ngir suñu mboole mbokk yi nga xam ni ñuy wéetal yàlla ñooñu lañ defal cadeau bi mu ngi tudd cadeau wahabite kon nga dégg gisi ni ñoom si seen bopp ñoom ñoo nangu ñi ñoo ñoom ñoo nangu ni ñoom tudd nañu alwahabiya kon buñ leen woowe wahabiya tooñuñu leen beneen bi tamit al alwahabiya lu jiitu jamono buur bi di abdul aziz ibnu saoud kii sos kuréel bi di al alwahabiya mu ngi tudd muhammad ibn abdul wahab muhammad doomu abdul wahab moom am na mbokkam frère bu tudd suleyman ibn abdul wahab suleyman moomu bimu setlo ni mbokam mi don dawale Muhammad ibn Abdul wahhab ba gis ni ka dal ni muy dawale wuute ak li diine santane wuute ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom xam-xam la ku nang won top bayam la dafa juk talif tere tudde terem bi as-sawa'iq al-ilahiyya fi radd ala al-wahhabiyya naam kon gis nga ne moom nee na téeram bi mu ngi tudd radd la ko def waaye lan ala al wahabiya li ñuy woy wahabiya loolu la nekk di raddu kon ndëgate wahabiya buñ ko waxee nekkul lu bees nekkul li tooñange naam waaw léegi mbokk yi lan mooy wahabiya wahabiya nee nañu ki ko sos ki ko njëkk indi tasaare gu si kaw suuf mu ngi tudd muhammad ibn abdul wahab muhammad ibn abdul wahab moomu lan mooy taarixam lan mooy jaar-jaaram ci wàllu xam-xam ak fan la bàyyeekoo moom waa najd la najd pour ñu mun ko préciser dañuy delluwaat rek ci source yu wër peng yu wër yu ne fàng dàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog bés ku dem sa ci biir saxiir buxaari di nga fa fekk xadis bi yonent bi dafa toog bés di waxtaan ak saxaaba mi mu ne allahumma barik lana fi yamanina wa fi shaamina mu ne yàlla yàlla nag ñu barkeelal su suñu yaman jii ak sunu shaam shaam tey mun ko woy siri saxaaba yi tontu ne ko yaa rasulallah wa fii najdina ay waay yow ndooy yow ndawal yàlla li sunu na maanaam sunu sunu najd bi nag yonent bi faalewu leen mu bamtuwaat mu ne allahuma barik lana fi yamanina wa fi shaamina mu ne yàlla yàlla nag ñu barkeelal suñu yaman bi ak suñu shaam sahaba yi jëlaat bu ko laaj yonent bi doo ñaanal waa najd na ko yàlla bàkkeel yonent bi faalewu leen mu waxaat ko ñetti yoon gars yi waxaat ko liñ ko waxoon yonent bi jël mu ne leen min huna foofu ci najd boobu ngeen may bëgg a ñaanloo fitan ay fitna yu bare bare dina fa bàyyee ko wa zalazila ak yëngatu suuf maanaam ay tremblement de terre dina fa bàyyee ko sallallahu alayhi wa sallam musalimal kadab foofu la foofu la bàyyee ko waye mom yàlla defoon na sutura musalimal kadab yëngalul lislaam yëngal boo xam ni dinañ ko woy fitna yëngalul islam yëngal bo xamni mën nañ ko wowe zalazil moy ay tremblement de terre wala bo yëngal gësam l'islam ba mu yëngal ba mu muslim al kadhab deful loolu ndaxte al khalifatu al awwal manam Seydina abou bakkar djugon na envoyer Seydina Khalid ibn Walid ñu djuk dem xex ak mom ñu stopper ko net kon koku yàqul lu bëri ci lislaam su amee su fekkee am na lu mu jot a yàq benn kuréel dong dong lañu xam si àdduna bi yonent bi waxee loolu ba ginnaaw ba ba suñu jamono ji ginnaaw bi ko yonent bi waxee ba suñu jamono ji benn kuréel lañu gis bu bàyyeekoo najd boo xam ni ci sababu kuréel googu fitna am na ci biir lislaam sababu kuréel googu ay bakkan yu bare bare bare bare rot nañu ci biir lislaam te ay jullit lañu mooy lan kurel bi di al alwahabiya ñom dong lañu gis ñu baye ko najd te dëggal waxu yonent bobu nun sallallahu alayhi wa sallam ndax te yonent bi biñ ko laajee dafa ni fofu lay génne li ñu wowe qarnu shaytan qarnu shaytan so nexe mën nga wax manam mandar nga shaytan mën nga wax manam liggéey shaytan bi gëna mak fofu lay genné te ben kurel lañu ba gis bu fa genné moy al alwahabiya te ñom ñoko ko wax seen bopp nee la téré bi ñu ko tuddé manam tuhfatul wahabiyya an najdiyya kado wahabit bo xamni ko ju najd la manam wa najd la naam légui mbokk yi kan moy muhammad Ibn Abdul wahhab muhammad Ibn Abdul wahhab euh bala ñuy dugg ci mbiram fokk rek ñu am ben muqaddima bu ndaw bu ñu def moy faw ñu xamni ko muhammad Ibn Abdul wahhab diineem yëpp. ci limu wax ak ci limu wote mu ngi ko wékk ci benn nit ba ñaar mooy kan ibnu taymiya alxarraani ibnu taymiya alxarraani ak taalibeem ba ibnul qayim al jawzi li may wax ni nag du du man maa ko wax seeni téere bopp ñoom ñoo ko waxal seen bopp si seeni téere bopp ku dem ci téere bu tudd taarix ibnu xannaam taarix ibnu xannaam mooy nga xam ni alxuseyn ibnu xannaam كوكو taalibe محمد ابن عبد الوهاب la téereem boobu taarix ibn Xannaam bokk na ci référence histoire wahabi yi gën a mag ci nga dem ci téré bu tuddu tarikh ibn Bishr bu uthman ibn Bishr koku talib Ibrahim la kan mo Ibrahim Ibrahim do Muhammad ibn abd al-wahhab la kon gis nga ni refer manam téré yi ñuy référence seeni téré bop la ndax te dañu bëgg euh taxaw ci wa shahida shahid min ahliha ايوا محمد ابن عبد الوهاب نينا نيو ابن تيميه رك لا تك بت موم اك طالب ابن القيم ندخت لي ما يخ ني نيوم نيوكو واخال سين بوب بو ديمي تي تيري بو ماغا ماغا ماغا ماغ بو خامني مون نانكو وي انسيكلوبيدي وهابيت لا دانكا موغي ديف 8000 باج اك لو تك تيري باغي تودو الدرر سنيه درر سنيه مانام مبولم تيري وهابيتي سيني فتوى ak seeni risaala yëpp loolu lañ fa jël dajale ko fa ay waxu Muhammad ibn Abdul Wahab lañ fa dajale si biir téere boobu nag ñoom dañuy présenté wu ñoom wahabiti ñoom seen bopp ñoom ñooy présenté wu pour xamal la ñan ñoom dañ lay xamal seen bopp wahabi yi nee nañu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam indi na diine lislaam yàlla ko yónni jox ko dëgg naam alquranul karim mu indi ko ak sunnaam si dëgg la kay saxaaba yi ànd ak moom nee nañu ñu ñu tasaare lislaam dëgg la bi fi yonente bi bàyyee ko saxaaba yi taxaw si ginnaawam bi fi saxaaba yi bàyyee ko taabiuuna yi taxaw si ginnaaw saxaaba yi waaye nag nee nañu ñoom waxa bi ñoom ñoo ko bind de ku bëgg a xam li may wax nii da ngay dem si téere bi tudd ad duraru saniya tome 1 page 19 ñu wax ñe nañu yonente bi indi na lislaam waaye nag ginnaaw ñetti génération yi juutu ci lislaam mooy li yeneen bi wax ci xadis bi xayrul quruni qarni thumma alladina yalunuhum thumma alladina yalunuhum yeneen bi nee na xayrul quruni mu ne siècle yi gën ci siècle yi wala génération yi gën ci génération yi mooy qarni sama siècle man wala sama génération man thumma alladina yalunuhum bi si topp ci ngëneel mooy ñii topp si ñooñu bi si toppaat ci ngëneel mooy ñi topp si ñooñu looloo tax ñu ne ñetti génération yooyu ñoom ñooy ñu ñuy woowee as-salafu as-salih salafu salih boo ko déggee amul nit buy dund taw si buy dund tey si kaw suuf bu nekk salafu salih amul salafu salih consensus bi am ci biir l'islam mooy ñetti génération yu njëkk yi ci l'islam ñooñu ñooy salafu salih wala boo xarnu yu ñetti xarnu yu njëkk ci lislaam ñetti siècle yu njëkk ci lislaam ñoo ñooy salafu saalix ginnaaw ñooñu salaf munoo munoo nekk salaf kon boo tuddee sa bopp maanaam salafiya ah loolu njuumte la naam kon turu wahabiya moo gën a jekk ka salafiya aywa nee nañu ci téere boobu ginnaaw ñetti génération yooyu bi ñu jàllee nee nañu islam daanaka dafa dee l'islam dafa dee kenn xam kenn xamatul lan mooy l'islam lan mooy fondement ya lii taxoon yonente bi ñëw lii taxoon yàlla wàcc alquran nee na nit ñi xamatuñ ko ginnaaw maanaam ginnaaw génération yi l'islam dafa dee ba mu ñëwi si juróom-ñaareelu xarnu juróom-ñaareelu xarnu mooy septième siècle lan moo xew ci septième siècle boobu wahabi nee nañu ci biir xarnu boobu yàlla dafa génne nit ku tudd ahmad ibn taymiya alxaraani nee nañu bi mu ñëwee moom jaddada diine mu yeesalaat diine ji mu beesa beesalaat diine bi ànd ak ay taalibeem li nit ñi réere woon depuis ginnaaw ñetti génération yi ba si Ibn Taymiya ko nee nañu diggante siècle yooyu yëpp nit ñi dañoo réere woon lislaam ba Ibn Taymiya ñëw mu dundalaat lislaam bi mu dundalaatee lislaam mu mu bi mu fi bàyyee ko taalibeem yi ñu ñu tuddal ku mel ni Ibnul Qayyim ñu tuddal ku mel ni imaamu Zahabi ñu tuddal ku mel ni Ibn Kathir ak ñu mel ni ñoom nee nañu nee na ñoo ñoo dundalaat diine ci ginnaaw ibnu taymiya kon ñoo nee naa la juróom-ñaareelu xarnu la nee nañu ginnaaw juróom-ñaareelu xarnu bi ñoom ñooy wax ba tey nee nañu ginnaaw juróom-ñaareelu bi l'islam dafa fayaat ñu daw daw daw daw daw ba fukkeelu xarnu ak ñaar mooy ba douzième siècle ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wasallam nenañu jamono joo jëpp l'islam bi danaka nit ñi dañu réeroon xamuñu won naka lañuy jamo yàlla xamuñu woon li tax l'islam juk xamuñu woon li tax alquran ñëw nenañu bi 12e siècle ñewé amna lu xew fofu nenañu lan mo xew ci 12e manam ci 12e siècle bobu dafa am ku yàlla génné ci siècle bobu kooku kan la dafa am nenañu ku yàlla génné ci siècle bobu andi ko fi pour moom mu yeesalaat diine ji ginnaaw bi nga xamee ni daanaka diine ji sànku woon na ñu ne kooku mooy sëriñu sëriñ si nee nañu kooku mooy mujaddid bu mag bi nee nañu kooku mooy këhfu bi yaa ngi dégg de këhfu xam nga luy këhfu de <laughs> nee nañu kooku mooy këhfu bi moom mooy wéeruwaay bi nee nañu kooku mooy kan Muhammad ibn Abdul Wahab li may wax nii du sama wax ñoom ñoo ko wax nee nañu moom bi mu ñëwee it dafa yeesalaat diine ji te nee nañu loolu mu ngi ko teg si njàngale ibnu taymiya mi nga xam ni nee nañu ibnu taymiya mi nga xam ni yàlla da koo dajaleen mbooleem xam-xam settewuñ ci lenn nee nañu mbooleem xam-xam yàlla da koo dajaleen ibnu taymiya teg ko si kanamam lu ko neex lay jël lu ko neex mu bàyyi lii lañ wax ci ibnu taymiya te nee nañu muhammad ibnu abdul wahab moom moo ñëw yeesalaat liggéey ibnu taymiya yeesalaat diine ji